point zero, oh, Cordo point zero. Oh. yaa ngi wax jaamu yàlla ni ci ne boo ko deful tey nga dee julli juróom la ñu gëm muur sa papa mooy li gën duñu foo duñu kaf ci diine li leen yàlla sant la ñu gëm dee zero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 209 75. Notre site internet www.cefas-du-6sénégal.com. Vito Cocktail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 dina yokk seen kàttan boole si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nag vito so exsident pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag nekk si emballage yu civilisé te wóor ak jus vito da ngeen am choix vito jus et sow existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Keur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 Patricia ñaf yow de yàlla boo tafeeg Antonella man say xeetu sañse rek daf may rey ah collègue collègue de quoi tu sais toi je vais être avec toi je ne t'aime pas xajal ma ma jaar dama lay may nga ñaat ca tarantak yow looy déggee yow mënoo am pudeur quand même et c'est la dernière fois que tu m'interceptes comme ça ok genre nit yu mel ni yow ñoo tax dëkk bi mënul développé wu. voilà nag en parlant de développement xam naa ne loolu la ñor nag moo tax ñun nag dañoo boole plan Sénégal d'émergence ak Burok. eh teeyal defal ndànk xam nga sénégalais moom day jaawale baax ak ñàkk fayda te man relais communautaire laa ci développement rek laay dox. développement. waaw moo tax ñu organiser nga dem sa setal fee ca marché Lambada. c'est quoi ça. <laughs> xam naa doo ko war a mën a xam lambada fecc la woon xam naa sa papa ak sa ñoom yaay ñoo ko war a mën a xam suñu marché bii <laughs> lambada la wuy yoo turam ay ndugg lay jaay ñoom njobbee ñoom nombre jàlloo ay ñoom bëggëj ay ñoom suul ay ñoom jën maanaam daal ci gàttal tous les sponsors de ceeb waa baax sax li ngay wax yëpp kenn laaju la ko waaw d'accord si c'est pour la développement du quartier j'y serai enfin Ligue des champions pour Paris. muy campeón de oro en mi barba, mi nagoro salaamaaleykum soxna si dama bëggoon ku ma jàppale si ndogu bi. dégg ma li nga wax de. dama woor te aw ma lu ma ndogoo. yow soxna si nga baal ma dañ la wax man damaa dof wala si si parce que yow dañ la wax ne man dama la gën a yor wala nii rek ngeen di def di wëtti mbedd gi dogaale nit ñi te dekk na li am sax nit ñi amuñu ko ah wonte dëgg laa la wax de lu ma lu ma woon dëgg nga ma wax amuma lu ma la may boo bëggee loon nagoo da danga koy liggéeyi woon ñu waxtaan ci sa mariage ak cousin bi. luñ siy waxtaan. da nga nangu takk suuf bi. bu fi sësee eh. <laughs> kay. pare yow est-ce que ça va lan ngay daw bay daam ba nekk di nangu ay takk suuf bu dee sa mag laa sëy bi du am. wax nga wax heureusement ba déggalu ma ne soo amee looy décidé nga décidé ko sa bopp relation bi maa ko man la amul man la maa xool lu ma neex ma neex ko te loolu ma sa waaw. ok loo si góobee dina ko non garaawul man aw ma problème yooyu soo ñëwul woon sax may ñëw dox sa kaw wax ma rek luy kaa bi. ah man de soxna si ba koor gi ñëwee ba tey si ay jafe-jafe laa nekk sama sama sama sey moo yëngu sama jëkkër génnee ma kër gi aw ma sax lu ma lekk ma bëggoon nga jàppale ma. ay yow ndey saan da nga sa jëkkër xanaa da laa fase. aw ma sax. soxna si nag ñetti ñii kenn waru leen a nëbb sa médecin sa avocat ak sa toppkatu kaa mais nag comme que demee na noonu. jàppal ne nag dal nga fa nga war a dal man tiktokeuse laa teg ci influenceuse sa kaa laa jël dugal ko ci samay réseaux sociaux daal di koy live loolu ba wóor nag bon yow loolu lu si wóor dañ lay dimbali dong en live ñu jël kaa yóbbu ko bouquet mondial waaye nag dañuy ñëw ñu ànd parce que koñ bi dafa am grand set setal te set setal bi nag lu ma yitteel la bu buñ ci jógee nag ba pare ñu doog a ñëw ci sa kaa loolu baax na waaw man dem jarul nga nekk di tur. Christ yaa ngi wax jaamu yàlla nii ci ne boo ko deful day nga dee julli juróom la ñu gëm muur sa papa mooy li gën duñu foo duñu kaf ci diine li leen yàlla sant la ñu gëm dee